wa radiyallahu taala an ashaabi rasul sallam wala hawla wala quwwata illa billahi yaay mat udrana beesal mahdari wal taf nasrat tataf joxal kii mu jàng yow gannaaw doo liir nga bàyyi kul ci rib ngi harfu faa mbokk yi des nañ ci daara ji ci bindab Seyda Xadijatu Juuf ci sifaawul askam yal na yàlla saafara suñu jàngoro yi dangal ju korona ci barke soor askam gaar xut faay ci xatam 108 ci téere yu bees yi man ma nekk ci man téere yàgg yi lan la bay wax faal bi aqiiqin li bi taybata mawqifun yu fari ju fii xamoo hiinan wa yëg faal bi aqiiq ndax nit dafa aqiiq benn place boo xamante ni mu nga nekk ca Madina ndax am na fa bi lii ñel ma bi Tayba te ca Tayba ndax am naa fa ma wax fan foofu mën a taxaw xam nga bàyyi li ma lay wax na bàyyi tur moom ci ba lay waxee ak daxaru du waxee samaan du waxee leneen ci daxaru lay waxee ak Tayba ndaxte Tayba ak Tayba ak Madina ak Yasriba tey romb nañ Madina romb nañ Yasriba tey ñu ngi capitalu yëf yi mu ngi ca ca ba te euh, ni ngay xamee ba rek mooy kat bu yëg ndax dinaa mën a am taxawaay ca Tayba taxawaay boo xam ne yu bëri ju dina wuñi fii cum alxamu suma itti xii nan ak jamono su ko defee wayu sufu ñari ko ndax dinaa ko mën a am waay ah, ñu ne bàyyi fuy aqiq mu ne xaqiqun wa barxaanun wa waadi musay nabi ila siyaqil wal xaraamu yu këllif xaqiiqun mm-hmm. ah, fi nga xamante ni xaqiq ah, mm-hmm. mu ne fukki kilomètre la ak ah, makk mm-hmm. wa bataan ak bataan boo ko déggee moom makk la wa waadi museynab a waadi museynab ku ñu wax waadi museynab ñetti foofu nga xam ne mooy ñetti place yooyu ilaha jëm na ci istiaq sa mbëggeel xaama nag ñetti xaqi ñetti place yu muy place tam ñetti place la wax nag mooy xaqiq ak bataan ak waa di mu seynab jëm na ca istiyaaq yi wal xaraamu mbëggeel gi ma jàpp mu kalafun yu kalafu dama teg ay taklif bi maanaa teg na ma ay sart boo waa di xanaatin wa naqe la ma fokkul lahaa diyaari wa sikraha li wajji yu xafifu ak ban wa waa di xanaat waa di ak naqee mu juróomi juróomi place fokkul laxaa képp cooyu diyaar yi sama kër lañ ma bàyyi fu ma wax déggéen sant sant kër kër yoo xam ne ay yu ma fan la waaye xoolal xam nga léegi indi na juróomi kër ca fële ne ay këram ne mu indiwaat fii xusóor madina saam koosun wa taybatu wa kawlak mm. xartu yaa bi sikri ah, kawl mi daal juróomi kër kon nekkoon na juróomi kër di kaan indi na juróomi xasru ne mooy mooy place mm-hmm. Ah? Mm-hmm. kon dëgg-dëgg yàlla waay waay dëgg-dëgg waay kon ndeke ndeke place sax dañuy fecc léegi place bu na la ca màkk mm-hmm. bu dikkee buñ ko changé dañuy changé tableau ab tableau bi nga xam ne moo doon tableau adresse bi léegi kon juróomi kër tudd naa ko indaan naa juróomi kër fii de يني موي سمكر بكلها دياري وسكرها سماي فاتو كوري يقففنا ويفل لوجي سما مغي قام دما جاكرو وهل وقوف بالبقيه مسلما على اله ودع مني اكفكف وهل لي نحن امان ابراهيم يس وقوف ما تخو بالبقيه تبامل بقيه مسلما من يحل علي وبقيه waddam oo rongañ mi ni ci man Ibrahima Niass ki mm. tibu maa ngi koy fekk bàyyi ne damay taxaw booy lay ño baqee ma commencé de euh, fekk samay rongañ sama bëgg a jooy mm-hmm. mas naa fa ma ma dikk fekk iranien yi xam nga ñoom la ñuy jooy ak li ñuy jooy yam mm-hmm. eh, nga fi ne Saoudia mm. nga dem ci bàmmeel bi jooy xaram mm. yaa kii ko xal yaa saw waaw boo jublu yonent bi fi na ngay dikk nii ci yonent bi déedéet la la la la xaram yaa xaaj xaram bàqee nga dem di jooy hmm. ca biti ca biti ma leen yaa daasi anta antum attab kon xal li naa fi kon hmm. waaye mu yéen du ngeen jooy bàyyi leen nit ñi jooy bàyyi leen jàmm waay <laughs> ñoom ñoom seen xol dafa wow duñ jooy mukk yéen du jooy ci kii yow na yow te boo demee ñoom ñun sénégalais yi boo demee ak pakistanais yi boo demee indien yi boo demee dañuy jooy ñoom nag mu naqari leen loolu musiba mu ne ko man de Ibrahima Niass soo de okok آدمه مني دما فإني وتيامي وجهي ولو أتي وما لي قليل في توادنا في توله يمسك فإني من إبراهيم يس وتيامي أغنى مغلمي ووجهي أكثر من جاقلك ولو أتي قم أي ngëla njàqare maanaam mbëggeel mën naa tax nga gëlëm wëjdu mooy mbëggeel goo ka ne boo sa xel daje ka nga bëgg sa xel sa fi ne tëf moo wax ba kër law at mooy mbëggeel goo xam ne sa xol day mel day lakk lii ay xeeti mbëggeel la moo tax mbëggeel dafa bëri ay kii lu mel ne que xesku ah ak yooyu yëpp xesku mooy yaag eh, xaasiq ak max maxsuuqi ñoom ñaar dañoo nekk kenn ah wajatu abibi baada mawti bi hubbi ndeke huwal xaasiqul mahbubu min farti qutbi man damaa yëg jot naa ki nga moom laa bëggoon ndeke man mii jooy maay kamay jooy ka ndax lan dañoo jigante ba ëpp moo tax moom laa wax boo demee waaw boo demee ba jigante ki nga xam ne moo nga jigéen nga ndeke yaay moom gaa yi géntaan na maa ngi gént pour bëgg a gis yonent ah waaye dëgg dëgg yàlla loolu loolu loolu tooñ la di oo tax moo tax ji nga fi ñu jëm si fii boo ci accès dooy toog naan may lii may laa yow kay da ngay da jooy rek وما لي من أمام الإمام يسقل الجبر من نقر آه، في توله كي نيقم نمم لا اه، ليختوله كم تولو يتوله <laughs> ما يغفر نتكوي يو يا نتكوي بما أنا بو بجي نت بعد تلاك سكو نيو يو يا نتكوي بما أنا يو يا أبل بو كم لي ينسفو بو كم لي دفع ينسفو دفع يمان من أمام مرام كني ما نما بجي sama ni ma sanaxee ci yonent bi mooy tawlu bi ni ma ci sanaxee gisuma ci borom amu ci xarit sax man ku ma ci bëgg a wax man du ma la fale ah wala si aru min ni bil ibarati waa fiyan wa ma laqa fi jambi nabi takallum wala si aru déer way min ni ci man waa fiyan mën a matal ibarat li may li ma mën a firi woyu mën a firi li ma bëgg a wax mënuma ko woy wa ma laqa li nga xam ne fi jambi nabi li may daje ci xetu ko xotu yont bi tëkkal lëfu dafa maa def tëkkaluf tëkkaluf mooy teg na ma lu ma muntu lu ma lu ma mënta muñ boo gisee xul wa ma ana minal mu tëkkalifin tëkkaluf mooy ngay def def joo xamante nag maanaam def def loo man mooy tëkkaluf man nag daf maa teg loo xamante ne ëpp na suma man ah bàyyi ne kon nag fa nafsatu masdoorin mbadihi nabiyina fa yaqbalu usri bil madaahi munsifu fa nafsatu masdori taflitu ku dënan mitti mu soj madina bii naa te mooy tagg sama yonent bi tagg yi ma koy tagg xam nga nu mel ku soj sa dëndu ne xuux ko nga nga sëq tafli loolu mooy sama tagg yi kat loolu ci met kon nag na sama ngant mun si koo xam dafa maandu bil madaahi kon nag ka ni may taggee si yonent bi ku maanu da nga ma nangul nag ah Ibrahima ñax ñu ko bàyyee ndax wax dëgg yàlla nag Ibrahima moom lii mën a tax ma am faju daal bàyyi na ko mooy ah wasalu sanaahool Moustapha Fatiba oo wa afxaaluhoo tubbi sanaa wa to ari wasalun lu jàppandi la sanaa Moustapha tagg Moustapha jafewul de tagg ko fatibaahu ay jikkoom wa afxaaloo ak i jëfam tub bi mooy feeñal asana tagg wa taarif te moo lay xamal noo koy taggee yonent boo xoolee jikkoom yu rafet yi ak jëfam yu rafet yi yow moo lay xool na nga ne moo def nii moo def naa loolu koy tagg ko jëfoo kon nag ku góorgóorlu tuuti rek mën nga ko tagg kamaalun wa ilmun suma joodun wa ismatun wa asmun wa asmun bi sajaati tuddafu bàyyi jàng bàyyi jàngal na fa nga jàddi jikkoon ñu mooy lan kamaalu mat ga ca moom aka mat wa ilmun ak xam-xam suma jóodun tabe ga ca moom wa ismatun ak ñaa xam ne noonu la amee ak mucc waxasumul ak nam dogoo seetal waxasmun waxasmun xasmu bu ayin bi mooy dogu ci xol xasmu bu xalonk bi mooy foxaru xam nga boo dogoo ci dara boo dogoo ci liggéeyu da ngay sol yére yi liggéey su ko defee nag ñu ne ah kii de nar naa liggéey xam nga footballeur moom boo séenee mu sol rek euh, mooy euh, tuba ju gàtt yi ak euh, mbubb su gàtt xamal na naag waaye bu soloon xaptaan ba xam ne footballeur kon nag xasmu dafa yonent bi dafa am dogu dafa am takkaayu boo xam ne tur dafa dañ kaa teg bi sa jaati njàmbaar na waaye dogu koo njàm dogu koo xam ne dogu tax amaloon njàmbaar du sotti moom nag dafa dogu te dafa takkaayu boole ko jàmbaar ah, ak lan wa aqlun wa ilmun suma usnu siyaasatin wa soodun wa sabrun qadruhu laysa yorof billaahi billaahi kenn man ne bàyyi gis ñu ne ma tagg yonent bi sala sallam xam nga ñeneen bu ñu tagg yonent bi dañuy dem jëli eh, téeri sàngam nañ ko tag mu daj dajal copp copp téeri jàmbur yi eh, taalib kii moom day def jikko ci boppam lay dem jëmu ci boppam lay coppati par benn benn jikko ya mbokk li ñuy taggee waa aqlun am na xel moo rëy xel wa hilmun lewet ak a neex der suma usnu siyaat ak man mën a politique xam nga ñun bu ñu waxee politique rek dañoo am politique politicien déedéet xusnu siyaasa ak ma xaman bi maanaa siyaasa woy naa ko siyaasa ak dasaasa siyaasa mooy plan boo xam ne boo ko defee nit ñi jëriñu deferu deferoo mooy siyaasa dasaasa nag mooy doo xam ne yaa koy def pour boo paree am intérêt faru def lu la neex loolu mooy dasaasa dasaasa ak siyaasa dasaasa ci wax arab mooy yàq kan siyaasa mooy kan defar politique buy defar akam a ko man akam moo mën a politique seetal bokk na ci politique jigéen ñi dañ koo jigéen ñi dañ ko woon benn bés ne ko tey daal dañu waxal koo ci gën a koo ci gën a bëgg mu naaw baax na dem leen léegi nag mu dem nag taglu juróom-ñeenti jaaro juróom-ñeenti waaw jaaro léegi nag ci benn tëgg ku dikk mu yoota la jox la jaaro su dikkee ñu ne waa koo ci gën a mu jaaro bi laa ci gën a bëgg kenn ko <laughs> kenn ku ne yéen ne ah waaw dégg naa la man mii moo tax lii lii borom kër yi dañ ko dañ ko dañ ko dañoo dañoo mën a politique nit ki <laughs> <laughs> dégg loolu mooy wutu siyaasa te kat bu kon juróom-ñeenti yow yow benn jabar rek boo ko yoree sa kër mën ko mën ko jël tax man dafa ko porté kii yore ñaar ñetti ñeenti juróom juróom benn juróom ñaar juróom juróom ñeent ak taara man leen rek la ci benn kër jenn benn ku amul cam <laughs> ñun ah moo tax ci nga taalibi daal yi nga xam ne ni nga xam kii mën nañoo defee ñeenti jabar ci kër te benn problème di am fii ne boo demee ci réewu naar yi ne leen ante kam kam ñaan daka urma ñaata jabar nga yore nga ne salaasa arba ne laa laa yaa loolu moom laa laa la ma ne waxuma loolu ñoo ki benn kër kii ne kii ne kii ne mu laa di dooni muskila di bu ko de arab yi fii ne benn jabar rek lañu ma kii day roy yonent bi ñun ñoo a yonent bi ah de nga ndax li yëpp dafa baax nga xam ko ci pult pexe noo xam ne man nga ko réglé si kër jàmm ne ñooy ah te dara du yëngatu lii la fi nekkoon ah anaa la anaa la dina amee xaata un may déedéet boo suurun kon ak dëdd yonent bi ko xeeboon adduna woo sabrun muñ ak a mën a muñ hoo dayoo yonent bi lay sa yoro fa kenn xam kenn mën xam kenn mën xamul ni nga xam ne mooy dayoon bi moom donc yàlla rek moo ko xam alayhi salaatu laay suma salaamuhu analo attan en doho layiso haala yel nekk toon salatu lahi suma salam o yal na ko yàlla def salatu salam boo xam ne su ma ko amalee anaalu danaa xamee ñun ñu amee hatta an may xeedo moom laa yusuf bi koo xam ne kenn du ko wax nii ki nàkk tas wi may koo xam ne amul nii ki nàkk yàlla nañu yàlla may defal salatu wasalaam boo xam ne danañu may may goo xam ne dañuy wóor péng li ñu may may gis nga bàyyi si rek moo mën def salaat ndaxte salaatu ak salaam mooy ijaadaat yi ak imdaadaat yi salaatu salaatu mooy ijaad salaam mooy imdaad bàyyi nag dafay ñaan ijaad bi ak imdaad bi mu sotti ñu ko moo tax lépp loo xam ne buy ba bal balu bal maanaam bàyyi buy def bombe atomique sax salaatu ak salaam day def bombe atomique salaatu ak salaam ci lépp lépp lépp nekk maa ngi koy dénk lépp lu ñu bëgg na fexe ba xam ne mooy tëggee tëgg bi rek nag ñu tëggee ñaari bale salaatu ak salaam xam ni nga koy tëggee nag soo ko defee rek nga dóor ko nag xaa xam nga damay bañ ñu ngeen def ko ci boo xamante ni moom sa bànneexu bakkan ci ko bàyyi du ko def ci bànneexu bakkan de <laughs> bàyyi lu muy def rek moom nekk na loo xam ne intere général la waaw waaye nag nga dem nag gis ne nga maam ah, dégg nga maam jabar jàmbur yoo bëgg mu tas rek nga dóor ci salaatu ak salaam rek <laughs> ma loolu de <laughs> wala wala wala jëkkër jàmbur jooju bëgg a nak ci nako ci ci jabar ji rek nga doon ko waxuma de <laughs> wala jël àll jàmbur jooju bëgg a joxe waxuma loolu de da ngeen di def loo xamante ni lii boo ko defee moom intérêt am ci njëriñ am ci loraate ci am ko defee ku ko ci def ah man day ah jox naa ci digal ndax bàyyi nga taal dina ma indi autorise naa lépp li ma taalif kon ku ci defee lii li ma wax ku ko ci defee may naa la ci digal nag <laughs> ci salaatu salaam yëpp nag <laughs> alayhi salaatu wa salaam tuqaribu lil baytal arama utoyifu xaala yéen nekk doom salaatulahi sama salaam boo xam ne tuqaribu day jigéen li ñel al bayt néeg ba alxaraam bu yàqan ne buy xorma atoof ma koy wër yàlla nag ma defal salaatu salaam boo xam ne dafay tax ma jigéen Màkka dem di aji Kaaba ga yàlla ñu ko yàlla defal ñëpp ñu dem ci Kaaba ga di ko wër nag alayhi salaatu laay suma salaam o xaala xidmatul muxtaari dariya dégg nga akki يالنا يال دمر كو صلاه السلام بو خامتيني على قدمه المختار ولا بولا نخي اكيفو داماي صح على قدمه المختار ماي ليغي مختار دار يا سما دارو ييب يال سيتال دي صلاه السلام يال دبا صلاه السلام وخني سما ادنا ييب ماي ليغي المختار عليه الصلاه والسلام سلام على سنه البيضاء لا اتعصب يال نكو يال دبا صلاه السلام بو خمنه لا اتعصب دوما تيغي xam sunnati ca sunna ba albayda taasu mooy nga teggi gëj bi ba ci yoonu jaar ci gëj ba yàlla na ma yàlla dafa sala salatu salam boo xam ne du ma ci gëj bi ba ci bu leer am yàlla yàlla na ko yàlla defal alayhi salatu wasalaamu fala masani yowman bi ay si bi na yàlla defal ko salaatu salaam boo xam ne bu ma ko defalee fala masani du ma laal du ñu laal yow man benn bés taqasufun ak wow taqasufun ak joote bi ay si bi ay sama an suñ yal yàlla na ko yàlla defal salaat salaam boo xam ne suñ dund bi yëpp duñ ci xoos duñ ci ñàkk dañu nekk ci ay naataange amiin yàlla ñu ko yàlla defal waay alayhi salaatu waay suma salaam woo falam alqaman yalha wala man yu annifa yàlla na yàlla defal ko salaatu salaam boo xamante ne falam alqa du ma daje man koo xam ne yalha daf ma yedd wala man jaa xam ne yoo xam ne dafay xas amin yàlla na ma yàlla yàlla na yàlla defal salaatu salaam boo xam ne dañu la jox koo xam ne daf ñuy yedd ak xas alayhi salaatu laay sama salaam moom ah, dégg nga wa aarifu daari bi la si kuntu ah, aarifu <laughs> illa illa illa cey bàññi ah dégg nga yàlla na ko yàlla defal salaatu salaam boo xamante ni su ko defee wa aarifu ma topp ma jaar daari bii la si laa xam ne continué que naka aarifu la ma xam ma jaar ca la ma xam jàng jëfandikoo sama xam-xam yàlla na ma yàlla dafa salaat boo xam ne daf ñooy tax liñ xam ñu jëfandikoo ko alayhi salaatu wa salaam o foolam yëkkoo anwatasi na bi atawaqafu yàlla na yàlla dafa salaatu salaam boo xamante ni foolam ëkk du ma nekk atawaqafu di taxaw xanmati na bi bàyyi tagg yonent bi amin yaa rabbal aalamiin salaatu salaam boo xam ne du ma taxaw mukk damay tagg yonent bi عليه الصلاة والسلام و آله و سيدنا سمرو و تعففو يالا الصلاة والسلام و كمنتيني يالا كنتي آل و أكسابو سمرو و كم دنيا و غو دنيا و غو و تعففو تجي فغو ما كمنتي آمين يا رب العالمين كون فولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته